ak Baye Demba Baye Ndiir ñu lay nuyu bu baax. mais fay naa la. ñu fekkale fii ci mariage yu Aïda Samb bi. Mhm. donc euh, di la laaj say impression. waaw waaw euh, comme sunu mbokk tey am boroom kër ñu naan ko Abbas Abbas nag buñ ko xamee ci mbéy jee laa ko xamee borom way wu réew wi ah baax lool boroom xolu jamaa bi laa koy wax léegi nii rek. ndeysaan ñu ngi wax ak moom ci ci vidéo bi nii xam nga waaw tey sunu teewaay ak ayda ñu naan ko félicitation quoi maa ngi koy wax léegi nii ndax loo xaar rek mu fekk si la kon dama ne sëyam bi dañ koy ñaanal lépp lu ci bëgg ci lu baax rek yàlla naka ci séntu borom bi mbay leen ay njaboot yu baax ndax abaat ndax ndax abaas dafa neex fekk Gambia muy nit ku baax di xarit ci Mbaye Dièye mu jël nag premier njëkk li nag may ko maam Ndiaye du suñu série koko muy série Mbaye Dièye tey daal kontaan nañ daal li ñuy wax naan daal xool seddati na xool seddati na ndax nag waa jëli waa jéeri ngoone gël sax dañu teew manaay jéeri ngoone maa loobe sàmba ku lu méttee see gindaat maam seex Mbaye sama waa jooju waaw ma dafa mel takk ñaareel ak ñeenteel dafa xew yow est que dugg nga ci groupe bi wala dugg ko non fi ñu toll nag moom maa ngeeg maa ngeeg maa ngeeg sama benn bi muy Fallou Gueye maa séri kooku mi ma jural samay doom waaw mais nag ñaareel nag xew na fan yii man xamu nu mu demee noonu est-ce que du lu mu taw la. ci wala nekk moom nan ma bàyyi faa rek maa la wax lii kay. ah la